Ah, but it is necessary for me to explain. Waaye ah, It takes me three years before I can declare that I can treat a particular element because I have to make sure that it is I carry out treatment before I can announce it balaa maa yébaane ne dinaa dugg ci faj bi ngir balaa ma ko wax dama doon bàyyi xel ba seet ne li maa def si dinaa ci mun am yoon ayinta sanji saba jannimba kankulala ko mbe jararo ñin jararo kelal katun laftanu minna jannimba fola nga kuma koyo soto je anin ku senengo mi yalon ko mbata mandila walla but let me complete what I, a point I was trying to buttress about AIDS way xaral ma jekkali fi AIDS mbatu kuma kilim bambande nga AIDS la I remember during the first year of treatment. Mangi ngi fàttale ko at bu njëkk ci faj bi sanji foloo jaararoo ñinto. when we have CD4 count results. bi ñu CD4 count results kabiri nga CD4 count results o soto. the higher the CD4 we are. mu ni CD4 bi demee ca kaw rek ñu kontaan a seleta ñamin dong a siyata ñamin kontaan wala ñam. I remember one of the patients. hakkiloo baa kan mo killing i kena kenn ci ñoom. one western trained doctor told me mu ne euh, docteur boo xam ni tubaab a jàngal mu wax ko ne docteur Odo tubaab booy mi karande a faye ko. When they call them modern medicine men. Dañ leen wax ne modern medicine men. He looked at me and said, Oga. Mu xool ko ne ko Oga ay ajibi ak Oga. If you would, I'm going to put the same expression he had on his face. You may be able to understand who that person is. Mune dina am nu moo def xanaamam bi su ngeen ko gisee di ngeen certainly not docteur Mbow mu ne du docteur Mbow nag he looked he came to me and said sir mu ñëw ci moom ne ko sir oga oga patient bële bu ko laal baal ma delloo ko hospital bi rek bi ko léetee mu dee mu ngi am CD4 of 74 mu ne mu def lim def li ne ko CD4 he said he looked at me and said sir mu xool ko ne ko sir that there's a patient they are bringing Sir, don't touch her because she, she's going to die. Let me just admit her at the hospital so that she can die there because she has a CD4 count of 74. jox ñu ko ñu yóbbu ko ci lopitaan bi am na CD4 count ba 74 mu def xar xanam bi comme CD4 count was 74 mu ne CD4 count bi 74 la woo mu ne ma saa loolu nobody can make it mu ne ko bu ko lal kenn du ko mun a faj and then he walked out uh, uh, come here mu ne mu dem mu ne ko kaay a ah, commandé if the patient arrives here, I'm going to treat her. mu ne su fekkee ne patient bi nangu ne dinaa ko faj mu ne ko su jarak bi nangoo dinaa ko faj. dama ne kooku. koole ko woo. su ko indee fii. ni yaa naati jàng. dinaa ko dinaa ko faj. mbaa ja mbaa jaara la de. so I am going to la bu ko laal. ak ko saa du ko rek ngeen daane kana wo maa. xam nga si di foo of. 74 No, CD for 74 kanama I told him anyway I don't mind if the person arrives here I'm going to treat kay I can see more nodding his head so we went into to treat the, then they were eight that first came. Mu ne jamono jo ñom juroom ñett la won. Bi mo seelem no. Arrive. ñoom ñoo njëkkoon a ñëw ñu exe and this person was supposed to be the ninth kii moo waroon a nekk juróom ñeenteel bi wala ñent kela moo konoon do njamote was i was treated the first group mu ne bi maa faj ñi njëkka ñi groupe bu njëkka bi they brought her ñu indi kooku ñu yewoon naate and a stretcher ñu ko tiral ci stretcher yaa ke balankaaro ka this particular doctor went out mu ne docteur bi mu doon wax ni kooku génn wo docteur of finditan and said, You will go see hospital, go oga gis. kay ko ala samba lopitaan oto oga kanaji ala sam mu ne yóbbu leen ko ci lopitaan bu ko oga gis the late Musa Jammeh told him mu late ndem si ala Musa Jammeh ne I clearly had August instruction that if she arrives here, he's going to treat her. Dega na lu oga wax ne su ñewé fi dina ko faj. Nga oga la kuma kaw may ko na futa da jaba jarala. They would have taken her away without me knowing. Ñu ko don yobu mom yegut ke ba samba kané adu atema kalamuta. The guy cornered docteur Mbow kooku gisee ak docteur Mbow a ah, Doctor docteur Mbow je karala do wa oga bu mu laal kii ako ah, ala fo oga yi ko kana ñimma yi ko ala mu ne wax leen oga ne bu mu laal ah, oga mu ne dina ko faj bàyyi ko mu faj ko docteur Mbow kaay oga ko aba jaara la abula Jara? then he went to Mor Sagnang mu dem ci alaaji Mor he held Mor hand mu téye loxo Mor and took him outside to the patient who was lying on a stretcher mu yóbbu ko ci jarak bi te doon ci balankaar bi I was treating a patient. I just finished and I was giving the patient medicine. mu ne mu ngi doon faj ñeneen ñi pare muy jox keneen garab. Mor Sanya came. mu ne Mor Sanya ñëw Mor Sanya naata. ko mm, mm, mm. I didn't look at him. xooluma Mor Sanya maa jiibee. And I turned around. maa gesu xool beneen boor nga kara doo jiibee. They told me this is the second to last patient. ñu ne ko kii de mooy second to last patient. I said, well, but I was told that the ninth one is coming. Why waxoon nañ ma ne juróom-ñeenteeli jarak bi mu ngi ñëw koy moo konoon ta ñëw kanaale. Mosanya looked at me. mu ne Mosanya xool ko Mosanya had a serious look on his face. ci ci anam go hamne ni dal anam gu daw yaram. he said in Joola. mu ne ko ci Joola. mu ne maa ngi mbéka sànke nee thats <laughs> that is that that is the person I want to talk to you about mu ne loolu jarak bi ma bëgg wax mbiram lafta kuranto min na ku moo and uh, uh, yes what happened mu ko lu xew kay keta c'est ça tamukoro is gone is gone mu ne ko kooku jeexal na de <laughs> I laughed mu mu a jeleta I went out mu am findita and I saw the lady ma ndaw si fi mu tëdda nga jabe ndami she was barely just a skeleton kese la dese kulu kense when I saw her, ko I had two minds about touching that particular place. ma am ñaari xel pour ko. But each time I, I have doubts, I pray mu ne waaye saa ñaari xel yàlla sika sika ci mbir dama dee ñaan. when I was going round her. mu ne ba ma koo kabri mbaa minin then she opened her eyes and looked at me. mu xulli bëtam yi xool ma ñaayele ah, ay ah, njiibee. I cannot explain how I felt. mu ne wax lan laa yëg ci suma yaram. and I looked at her and I told her I will take care of you and I'll make sure that you, by the grace of the Almighty Allah you will not die. ma xool ko ma dinaa la faj te su neexee yàlla di nga jóg nkaay ngaa jiibee nkaay nii ala sonta mbee jaarala la aɗo ɓe wulila leen You see, one thing about Mo is that whenever he's confused, <laughs> he sits at one corner and starts to scratch his Observe him. So, I told him, bring her in and this particular doctor say eh man de duma ko de mu ne docteur boobu doon wax mu ne man duma ko de akoy konti taamaa la de I told the person despite the fact that you have a doctor of a title here I'm the only doctor with regards to it so don't touch us mu ne ko kon gannaaw yow doc beneen docteur beneen man fii maa fee docteur bii faj kon bu ko akay koy nte dem jan docteur de kanama I gave her medicine to drink while she was lying down bam tëddee ma jox ko garab mu naan abe laari ndami di yàlla amin I think it was Dr. Mbo, I told, her, told Dr. Mbo to touch one part of her body. Mane Dr. Mbo mu am ben yaramam fum lal ben bor rek yaram. am na fuma mu lal. Lipna na ham la on. Na ham mu lal. Bosko. Okay. Ay jeddete. And then the lady vomited. Mu ne ndaw si woccu ako mu so ñim fonota. Mosanya ran out and the other particular doctor never came in. Mune Mosanya chala daw gena wotola porta filina. Wo doctor wa kami fanene mamuru nan koteke. They thought that was the end. as soon as he vomited I laughed. even the Cubans were looking at me as to why I was laughing. and I looked at her I told her we are going to race from here to Denton Bridge. Ah, and after 10 days bam ko fajee ba am fukki fan ti li tànkoo la she couldn't believe Munenda ne ndaw si gomul ka man this is what has happened mu ne lii one. now I want to thank all those Gambians and non-Gambians Munemange ne gërëm Gambian ak ñi nga Gambian lafta Gambian kolo and minu Gambian kool